إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sant maam Cheikh Anta Borom Gaawaan mi nga xam ne lépp lu ñu am ci sëriñ bi rek moo moo tax ñu am ko di ñaanal as Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa di ñaanal Sëriñ Abo mu seex Mouhamadul Mamoun moom si borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootuk sëñ gaawan gépp ak njabootu sëñ Modou Mamoun gépp di ñaanal sëriñ Cheikh Anta mu yàgg fi lool te wér waaw waaw ñu ngi fii ci kër sëriñ Modou di dundal bisu bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko digle ne nañ ci jàng alxuraan ak xasiida bernde ci loolu nag ci lañ nekk ni dundal ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha li بالمصطفى له أمر وأفوز إذ جنة الخلد بي غدا أفوز بان لنا معا بلا التباس كون لعبد ci subaak léegi nag jàng nañ ci lu alxuraan ju takku jàng tam ay limi xasida yu wuute yu bari te noonu lañ ko fas yéenee wéyale eh, ba waxtu yeewee ku jot bu ñu toppee jublu ci bernde yi loolu lépp nag ñu def ko addi sëñ Tuubaa ñaanal kilifa yu baax yooyu ñu yàgg fi lool te wér waaw noonu daal lañ ko seen dundale jëfe ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha rek te ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñaanal suñu Cheikh Anta yàgg fi lool te wér ak sëriñ Abor ak mboolem euh, njabootu lislaam gépp barke sëñ Tuubaa شكوركم ساكن زائر النساء وليا بالمجتبى وصل كن شاكرة النساء وليا بالمتبع حسن الختام شكور كن شاكرة النساء